affaire la affaire bii suñ ko suñ ko jàllee dañoo war a xoolaat magistrature xoolaat place am xoolaat aussi place yi anciens yi man ñoom ñooñu yaakaaruma yaakaaruma li ñu leen di wax def nañ ko yaakaaruma loolu mais place bi anciens yi yi nga xamante ni am nañ tur place bi ñu mënoon am bi place bi ñoom Kéba mbay amoon ñoom Assane Bassirou Diouf un rôle plus actif ci défendre indépendance justice ci faire preuve d'exemplarité euh, taxaw di wane exemplarité ba jeunes yi jeunes yi fi nekk nii parce que jeune magistrature dafa nekk ci crise bu metti parce que amatuñu référence magistrature sénégalaise dafa nekk ci crise bu metti parce que amatuñu référence offrir tuñ ay référence formeetuñu ay magistrats à l'école comme ñun niñ ko doon dundee ñu indi benn lu Pereira de Carvalho mu taxaw def ay leçons de déontologie nga xamante ni ay nit ñoo xamante ni ils sont euh, désintéressement total xam nga am lu ñuy jàngal jeunes yi ci ay valeurs magistrat yooyu loolu je pense que génération bii nii ñi fi nekk euh, conseil constitutionnel ak ñoom ñëpp am na rôle bu ñu waroon jouer je pense que joué wuñu